salaamaaleykum mbokku déglukat yi dellu siwaat nañ indi leen ab xibaar ci coupe d' afrique des nations ba am ci atum 2021 fële ca Cameroun tey nag liñ leen indi moo di ñetti joueuru Sénégal yi nga xamante ne dañu daal di tas yaakaaru askan wi ci match bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Sénégal ak Zimbabwe. lundi gi la réewum Sénégal doon amal matcham bu njëkk te mu doxoon ci digganteem ak Zimbabwe suñu gaynde yi sax ñoo mujjee daal di jël ndam li ci score benn bi ci zéro gannaaw ba Sadio Mané dugalee but ba. match bu njëkk réewum Sénégal boobu am na yenn ci ay joueurs yoo xamante ne lañ doon xaar ci ñoom defuñu ko ba lool sax mën naa waral ñu daal di ñàkk seenu place ci match bi nga xamante ne moo rar a dox ci diggante réewum Sénégal ak Guinée daal di indiwaat joueurs yi nga xamante ne testé woon nañ leen positif ci joomu jàngoro boobu di coronavirus. ñetti joueur yi daal di tas yaakaaru askan wi nag du kenn ku dul Fodé Ballo-Touré Bouna Sarr ak Diao Keita Baldé tudd nag di Fodé Ballo-Touré nekk actuel latéral gauche bu AC Milan dafa daal di lajj ci match bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Sénégal ak Zimbabwe. ndax ci ay action yu bëri dafa daal di raté contrôle ak passe yi nga xamante ne amoon na ko ci match bi. mën nañoo wax sax ne peesewul lu bëri ci côté offensif ndax chaque fois su yoree bal bi war a xumbal caax yi dafay daal di ñàkk bal bi bu leen fàtte benn yoon abonné ci chaîne bi di like di Diao Keita Baldé jàppalewu ko benn yoon ndax moom mi nga xamante ne moom la tegoon comme ailier dafa daal di ñàkk occasion yi mu amoon lépp ci match bi ba looloo waral sax mu nekk joueur bu njëkk bi nga xamante ne Aliou Cissé moom la daal di génnee daal di koy remplacer ak kii di Habib Diallo. bu leen fàtte bàyyi seen commentaire ci vidéo bi ngir mën ñoo jox seen point de vue ci jàngat bi nga xamante ne amal nañ ko ñi daal di tas yaakaar du ñooñu kese ndax Pape Abdou Cissé na ci ñi nga xamante ne dañu daal di lajj bi côté défensif bi ba mujjee def ay faute yu dul jeex mbir moomu nag moo tax ba ñu bëri di xamle ne gëddëm du ko mën a jot ci équipe nationale bi ndax lañu doon xaar ci moom defu ko benn yoon. Seynabou Diop pour seen